Euh, li nga xam ne moo di samedi mag seen émission euh, bi nga xam ne day ñëw di def benn round maanaam natt ci ay bés bi yëpp. lépp li nga xam ne jaar na ci euh, mbégte googu nag euh, tey euh, dañ ci boole leneen moo di dalal fi kenn koo xam ne mën nañoo wax ne bu nekkee jàngat ak leeral mën nañu ko indi parce que damay fàttali ne mosoon naa ko fi dalal mu jàngatal lu ñu bari wax nu ci biir parti démocratique sénégalais loo xam ne buñ deftoon ndànk gis nañ ko tey jii mu di soxna na bu Wade mi nga xam ne mooy député maire bu fi nga xam ne mooy Fass Gueule Tapée Colobane tey jii ñu dalal ko parce que nag dama jàpp ne jàngat war na ci li nga xam ne la moom la ñu génn moo di élection présidentielle yi gis nañ ni mu demee waa parti démocrate sénégalais ñàkk nañ li nga xam ne moo di nguur gi ginnaaw bañ fi toogee fukki at ak euh, ñaar yoo xam ne def nañ ko fii malgré bilan bi nga xam ne moom la ñuy wax sénégalais yi dañuy wax ne kenn mënut a taxaw wax ne Abdoulaye Wade defu fi dara waaye nag. am na yeneen yoo xam ne xew na ci biir parti bi parti bi est-ce que ni mu waree taxawee taxawee na ko est-ce que tamit ñëpp ñi nga xam ne waroon nañ leen jox seen cër ngir parti démocratique sénégalais taxaw am na fi wala amul nañ ko siq waxtaan ak soxna sii toog ndax min na parti bi bu baax a baax daanaka fa la jàngee lépp soxna Seynabou maa ngi leen nuyu. Pape Alé maa ngi lay fay. <laughs> jox la kàddu nga nuyu ak suñu mbokk téléspectateurs yi. waaw di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sénégalais yëpp Pape Alé di leen baalu àq man baal naa leen àq. di leen baalu àq ndax ku nekk ak la yàlla xiir ñii daf leen xiir ci ay association développement ñii mu xiir leen ci ay daayira ñun nag mu xiir ñu ci politique. mu nekk loo xam ne léeg-léeg day ànd ak fitna kon ñi ci jot a ñàkk seen bakken maa ngi leen di jaar seen i mbokk di bokk ak ñoom naqar bi di baalu ñëpp àq baal naa ñëpp àq. lu tax ngeen ñàkk nguur gi. waaw Pape dama foog ne daje woon nañ fi benn bis wax nga ko léegi kon damaa yaakaar ne waxtaan boobu la ñuy benn parti Pape Ali amul militant bu ko yóbbu pouvoir mooy militant yooyu rek ñooy yëngatu bu voté jotee ñoom ñooy dem gisi ay nit waxtaan ak ñoom mais li ma la mën a xamal mooy sympathisant ñoo ëpp doole parce que ñi politique ci réew mi bariwuñu hmm. ñoo gën a néew ñu politikul kon nga xam ne amul benn parti boo xam ne mën nga am majorité mooy yow parti kese nga dem déedéet say sympathisant rek moo la mën a yóbbu say sympathisant nag boo demee ba ñu mere la Pape la ñàkk loo day yomb tey nag ñu jàpp ne waxoon naa ko ci benn journal boo xam ne sax suñu journal laa mën a jàpp ne moom la parce que dama xamul ndax messager laa am déet waxoon naa fi ne euh, PDS bi ñu ma ko laajee dama leen ne léegi regroupement d' association la. xam nga loolu loolu regroupement d' association mooy maanaam. Mhm. Euh, boo seetloo Pape Alé Senghor nekk na fi ba fi déggoo ak moom mouvement de soutien. mais Abdou Diouf bi ngeen déggal mouvement de soutien keroog ba mouvement de soutien yi bare daanaka ci la commencé ñàkk réew mi mooy li ñu dal ñun ne dañ ne salaamaaleykum rek. 2000 2003 rek mouvement de soutien yi commencé. ay wadis te mouvement de soutien yi du question wadis PDS dafa am ñu yàgg wax ne ñoom wadis lañu am ñu mel ne man ñu yàgg wax ne ñoom PDS lañu ndax programme fondamental la ñuy topp. parti la ñuy topp ci ginnaaw Wade waaw parti la ñuy topp waaw. mooy programme mu parti ngay topp rek. Mhm. ci ginnaaw nit ki tudd Wade. kooku nag mooy tax bu amee nu muy aw rek yow sa xel day dellu si waat nga won ko ne nii da la ñu waroon awee ki nga xam ne nag yow da nga ne man diw laa rek yow lu diw wax da lay neex lu muy bëgg wax da lay neex lu muy bëgg xalaat da lay neex te xam nga nit nit rek la mu doon. Mhm. kon bu fekkee da nga yore parti jël nguur te yow ñu ëpp ci ñi nga àndal mosuñu woon exercer ci biir nguur danga war a jël parti bi dénk ko nit. Mhm. li ci des yow nga ménager ko mu dem loolu nag moo ñu dalul moo tax ñu ñàkk mais dañ ciy sant yàlla ci bi ñu ñàkkee te ñëpp doon seenu dëkk bu tàkk dëkk bi sedd guy. Seynabou euh, wax jooju nga wax dafa xóot trop da nga ne da ngay dénk parti bi nit. ñëw dawal li nga xam ne moo di réew mi est-ce que confusion amul parce que dama doon yàgg a dégg wax joo xam ne dafa ma doon jaaxal trop boo leen koy wax la seule constante mooy lay Wade maanaam dafa mel ni moom rek moo du juum. waaw te kenn du ko gàgganti. Pape loolu ñëpp waxuñu ko woon mais ci biir parti bi dafa am ñu bëggoon woon seen morom ne ñu ilifuñu leen ñun ñi nag nga xam ne dañu yàgg ci parti bi dañu xam ne parti day am ilifaate hmm. mooy da ngay wax ne man seen Wade mii mooy responsable ci biir niveau. diw mooy responsable ca benn niveau. muy dem di dem di dem loolu mooy tax looy santaane rek day yomb. mooy kii moo nekk fii kii moo tegu escalier bi daal. day yomb xam nga boo jëgat escalier ñi ci daanu bariwul. ndànk ndànk ngay def mais loolu tamit noonu lay demee mais ñoo ñu doon wax yëpp benn constance mooy am saa boo ko déggoo rek coow moo am mooy am na ku leen jiite ñu bëgg ko di ngat di wane ne kooku du dara benn rek moo fi nekk. Ah. boo ko seetloo rek na nga seetloo na nga jàngataat ñi ko fi musa wax ñëpp ñan lañu. mooy am na kenn koo xam ne. nekk na en pole position. Uh-huh. Uh-huh. nga koy wan ne ko uniforme ma xam nga doo ñëw rek ne ko yow de Pape Alé uniforme ma danga naan fii de borom kër gi rek moo fa ilif mooy borom kër gi yow <laughs> ki mu teg sa kanam ilifu la. Ah, loolu moo doon indi ñu doon wax ñu ko doon wax. lu ci bari boo ko boo ko jàngatee lu ci bari parce que man jàngat bi rek laa ci am nii. Mm-hmm. mais ñi ma jàngat ñi ko daan wax ñu bari circonstance yi ñu ko waxee rek mooy am na lu xew nga bëgg woon ki ngay waxanteel ne ko yow ilifoo ma fekk ne kooku yor na cër boo xam ne war na ci mën a ilif ndax nag ànd moom même ay xar sax bu ñu àndee léeg-léeg gétt di nga gis benn bu ci jiitu mm-hmm. waaw ci gétt gi da nga jekk gis bu jiitu yi des mm-hmm. yëpp topp ci bew bew tamit excès dabu leen ndax nguur gi parce que sénégalais yi li ñu leen gën a mere moo di gis nañ fi des fois yenn comportement di wax ak sénégalais yi mel ni yaa leen yilif benn insolence sax lañ mën a wax arrogance boo xam ne da leen métti sénégalais yi. waaw Pape sénégalais yi tamit am na loo xam ne ñoo koy def ci nit Pape kii ministre la yow sa carte moo ko fal partem ba tax moom mun a nekk ministre. Mhm. mais lu tax yow munoo ko yemale rek ci cëru ministre bi mais seetlu na sénégalais euh, yu bari yu jikko yu ñu am seen i moromu sénégalais ñoo la koy jox. Pape dama lay jox rek benn exemple man jour bi ma xamee ne damaa dem ba ne maay maire bi war dugg sama oto. damaa jékki-jékki rek gis ay ñu am doole ñoo xam ne xaw ma leen di bëmax ñi ma àndaloon ma ne lii lan dañu ne ma ñëwee sa gàddu koor ma ne déet yéen tooñu ma te bëggumaa tooñ bu leen mu wutal gàddu koor sama xel dem ci tooñ comme man bariwu ma doole bu ma gisee ku ma yéen ma leen non ñii mënuñu ma indi ba fii ñu leen di bëmax xam nga loolu tey bu ma ko nangu woon ñoo ñooñu ubbi butu ba te man maa daan ubbi sama oto di dawal sama bopp man sama bi may jëkk dem assemblée 98 maa dawal ba assemblée waaw kon tey jii ma nekk maire boo xam ne man normalement damaa waroon dox ànd ak mbooloo mi ñibbi Uh-huh. doxatuma te mbooloo ma dañuy dox topp ma man may dugg ci oto ba pare ñu bëgg leen a ba max mais ni nga nitee noonu ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi ma yeggale léegi man loolu tey bu ma ko nangu uh-huh. may wàcc ñu may sama waa koñ laay jëkk soof sama yaay mooy mooy jëkk moom laay jëkk a soof ak samay rak soo ko soof waa koñ ma dañ naan lii lu ko fi jar mais loolu yëpp li ko indi da ngay gis ku ñëw di la seet fekk la nga toog bu la ndax yaay maire bi xam nga ni ma mag yow tey ñëw fi du saa bu ma xëyee def ko. ah defar nga ba mu waaw boo ko boo bëggee ñëw ne ndax yaay maire bi ndax sama rakk dafa nekk moo ma xaw a ëpp yaram xaw maa gën a rafet hmm. <laughs> di ko xool di ko jox catu bët ba pare di ma laaj ma ndax maay maire bi <laughs> moo lay won ne Sénégal mooy bëgg nit yóbbu yóbbu nit fenn yow nag yaay am xelu bañ man Pape ale keroog bañ ñu gañe dimanche uh-huh. ba ma xëyee ba may dem dëj ba am sama koñ uh-huh. samay carax laa solaat rek sol sama grand bu ku romb ne laa nabu ñii naan ma dem la maire ñeneen naan ma yaa ngi ardo de hmm. parce que da ngay jaxasoo ak ñoom yéen kay magum ardo la waaw waaw <laughs> maa ma ardo bi tamit dafa baax ñu lay jox rapport médical <laughs> mais magum ardo la yéen kay waaw c'est dama lay wax rek ne nit ñi aussi yooyu ñoo koy bëgg ñoo koy nangu eh. mais dafa am ñu la koy indil yooyu yaay bañ bëgg la wax nii ngay defalee nii ngay mais nag da ngeen bañul de ministre yi bañuñu nag déedéet mais du ñëpp ñoo bañul a ah, d'accord am na ñenn du ñëpp ñoo bañul am na ñoo xam ne ba léegi nii la ñu nekkoon jóguñu ca waaw mais am na ñoo xam ne hmm. gis nga gisoon xam nga yàlla sax boo koy wërdu ci am na yenn tur di nga ko jot waaw mais am na ñoo xam ne militant yu bëri li leen li leen ndax mu ne ministre bañ ko falee nga koy gëj gis gis nga yow na toogee làng noonu sànni matelas yeeg sa sa moromu jigéen yooyu yëpp jig naa ko ah eh, toog ngeen di waxtaan di laayante biir jigéen ndakaaru yi di ñëw foofu ci biir am na ñoo xam ne defuñu ko te man dama jàpp ne dañoo war Ablaye Wade xam na tam ma wax la loolu tey jii mënoo ma limal dix ministres yu yéeg défendre Ablaye Wade ci ci ci ci ci premier tour ba ci deuxième tour. xam man dama dama dama def débat. Pape nañ dem ci loolu. xam nga premier bi lan la mel. Hmm. danga naan Tamsir Thioy. Uh-huh. danga naan Aziz Diop Abdou Khafour Touré danga naan Khafour Touré. waaw xam nga kon ñu ngi wàññi baaraam. waaw ñooñu kat ay xale lañ loo xam ne li ëpp ci parti bi fekke wuñ ko mais am nañu ngoru bu ñu gisee kenn ku jóg rek damaa ragaloon sax na ñooy volontaire ndax li ñu doon woo bari na mais ñooñu. man xam naa lu bari sax. waaw moo tax la est que ñooñu rek ñoo waroon dem défendre. dama ne la kay dama ne la Seynabou mënoo ma limal dix ministres yu. bokk man ñeent laa yemagul woon. waaw xam nga moo lay won ne euh, du question sax ministre am na ñoo xam ne tàmmuñu ay débat mais am na yoo xam ne bu amee da ngay réagir waaw papa la fàtte nga ne man keroog bi ñu sànnee lacrymogène grande mosquée. Hmm. Euh, bi ci euh, zawiya Alaaji Maalik xam ma fu ma fekk. Hmm. boobu maa ngi porte pot porte ren dafa metti ci man mais nag man damaa bañoon lu ma bett.